aw amin diir ko jàmm ko fa mu feeñee sàkku win mi dana xañee aw amin diir ko jàmm ko fa mu feeñee mani fii la feeñee sëñ Saaliwoo fii la feeñee ba mu ñëwee la ni damay yeesal yoon wi yees la woon wees naa aw ñam balaa safee da ngay dox jéem ànd ak moom nekkal à jour. nekkal à la gën aw naaj bi fo di weer ngir am ndam. ngir am ndam. Serigne moo kuy xaar mu fegal nga añ. seet ba ma ko gisee laa noppaloo. ba ma ko gisee laa noppaloo. ni bëggatuma amatuma xamatuma namatuma fudul fii. feneen fudul fii. feneen fudul fii. kon kii kay sant ko. من زمين هدا بختالي سلام كريمنا دني من رجالي أموت وإني زو لدمي علي سيدا متعنفا زرني زاني عليه صلاة ما سلام بآلي وأصابي يسي هدا من الدين أسلت البلاء والجاه والفقر والغناء ولي قلت يا مختار وما تاب مني ما إلى الله أمدي ما كياما لو سنا أقول وقدس وفي الدور أسمنا إلهي بجاه المنتقى قسينتي محمد الكافي بريات بالدريم تفقت أنادي الموس وأسادات بي وخصص الأخدار لا تجنبي طلبت رسول الله إلي فوق النبي من الله ربي أجعل يخيمي تركت رسول الله إلي فوق النبي من الله ربي ورجاء لم يخيب بي تقاتل ورا سنسك تب الله سلمت من الله دايا اتر ما تدا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلام على الماء لسيس سانتجا محمد المقبول سبي النفس والبسيط وخاني دربي بيودي خمه والله إلى خيري بيده مجرمون وينو بيناي ويبن المسلم بن المختار المسلم المكرمون وجه لدى المولى دماسي تملخا سكوري على المعين ربي يفز بارتخاء لخير انتهى بالمنتقى كل ذي سخاء وينوم به نوي سيد وسجخاء لو سقوى تقدير هو القرب واللقاء ويغصي دواما من ناني بلا فضل فرغت من الغادة والله نورا فؤادي وأنزور والبر كفر فداني إلهي وأنا على خير وعاثر سليم نقدر يا باخي بلا من يتم كلي ولست على المولى قد أب كليل لأثر إلى الجنة خير المال وسليم واليوم دوام بيس والأمر سافة لي والأخ ديننا بإقدام سير حتى كل مرسلين إلى خيرنا تنور وما زيد كل loxo bu dul loxom moom ki bind jaam yi borom allah nuru samawati wal ardi ka misli nurihi ila akhirih te wa ma tashaa'uuna illa an yasha allah rabbul alamin yoy yi mu rappelé ci kaddo ta olof di faral di wax ne jëm boko ko top bam ba ngay dégg batam bo ñëmé tëdd po da nga ak mom la olof wax kon jotaay bi moko bindul ne bes sangam ci miladiya wala hijriya ci dat bu la neex ci ñaar yoy ndax mo am miladiya yonti yalla isa hijriya yonti yalla Muhammad bes bobakan kan da ngeen daje ci barab sangam sabab ba nangam lay doon tan na ñoom diw danañu ko fekke ñi ñokoy tambali ñi bu soré ñu dem ñi ñooy yeggale kon ñi dem bindam la woon ñu ciy jiital nag ak cant ndax dañuy faral di wax ne ku dul ku dul may sa bopp am na ñuy wax ne sax lu la may duñ la may nga jël waaw waaw man nag mën nañ laa may du la neex waaye ndem dangaa baaxoo ñu di la may bu ñu la mayee da jël man ngaa jël nag lu la neexul ndax nit des na ko may mu génn maye waat waaye rek ku dul may sa bopp duñ la may rek nga jël waaye loola nag ci biir nit ñi la yem yàlla moom lu may jàmm bi force da ko war a jël ndax jàmm bi xamul li gën ci moom ki ko bind xam li gën ci moom ndax nit daa baaxoo kumpa yàlla sunu borom daa denc ci kumpa hmm? nit daa baaxoo kumpa jëmm ju baax bii wax lii mu wax bu làq wala kenn fee di wax rek ñun ñëpp suñu xel bàyyi ko fa ci kumpa la ñuy nekk yàlla suñu borom daal denc ci kumpa ndax lépp ci bëtam la xewee moom la dara uppul moo xam la ca gannaaw li nit ki xam ndax xamam moo jëkk te mooy mujj waaw moom yàlla kon jataay bii ñu di ci sant bu baax ndax it bu ko neexoon mu doon jataay bu ndaw rabbi Hmm? boo ca demee bu la jéggalul boo lëgee mu fudd sa dikk kon bu ko defee jataayub lislaam muy jataay bi gën ci jataay muy sant yàlla dara mënu caa bàyyi ko lu dul lu jariñoo tey ak ëllëg kon bu nu ko fekkee jàpp naa ne gannaaw nuyoob lislaam bi mu xam bi ñu xam ak cant rekk ci war a topp xam-xam nag day wax ne aada du diine aada ak diine jotewuñu dara waaye Serigne Cheikh Tidiane si al Maktoum ay jéglu daana wax ne aada yi diine Sénégal aada ji da koo mën bariwaa ne penc moo dem ñu xuloo ci coow boo lambee la tas penc ma aada la du diine te bu doon diine duñu duñu ko waaye yenn saa yi aada indi coow ma jël ci rek lu dëppoog bés bii waaw ah, ma jël ci lu dëppoo bés bi mooy rek di nga dem ci bésu tudd ne tey nga fekk nit di tudd doomam bii jóg bàyyam mbaa mu bii jóg ak ndeyam maanaam baatub xuloo mooy bii ci olof olof dafay wax baat bu riis wadd ko mu bii jóg ndeyam mbaa mu bii jóg bàyyam ci lan doom ji kuñ ko war a tuddee te fiq moom muy sariat muhammadiya amul penc mooy dem ñuy laaj doom tur ku dul bàyyi waaye yenn saa yi bàyyi ak ndey bijoo ceeg doom hmm? te buñ demee ci fiq atte na tur bàyyi lañ koy laaj ndax bu layoo ko jotee maam du layoo bàyyi koy layoo waaye yenn saa yi mu jur coow kon aadaal diine bokkuñu waaye nag bu aada rafetee diine moom danaa mën naa ànd ak moom def naa ko sama doom da koy adopté waaye olof de nag gattax yàggam ci dex gi du ko soppi jësin hmm? kon aada yàgg-yàgg ci diine du diine ma indi beneen rek ba tey ndax wax ju dafa wax dafa jafe rawat na ñun la rajo ngi nii waxal am ku ci biir néegam di artiste di alim sëriñ Abdoulaye nee na boo ne dama ne raw nga ñetti buum yeew sa bopp yeew mbooloo mi mbaa nga ci diggante bi am na kuy teewlu ci jataay bi te néewu fi kon looy wax da koy gën a leeral nit dina wàccub liggéey ndax ci la bokk xalaxal mawta wal hayaata nit dina wàccub liggéey ñu jox ko cër bu rëy ci xam-xamu biir mbaa bu biti mu doon ku ñu xam ci say mbaa nit ñi xam ko ci biir kon mu jox ko daraja nga dégg ñu ne moom denc lañ ko tey mënta yem tey kilifa la juróom ñetti fan lay doon mbaa ñetti fan ñu coow ci lislaam moom xamul loolu li wax mooy faatu na jébbaleen ko boromam ñaanal leen ko te ñaanal ko yàlla fay ko jëfam fa saasa waaye buñ ko dëjul ñu ne waa kenn fonk ko moom day bam mu faatoo naka dañ ko denc rek mu jeex mooy diine te dëji léegi sax bakkaar la dëj bu ñu yendoo jëw ba ngoon hmm? te fanweeri njaaloo mooy bakkaaru benn jiw yendoo wax lu dul dëgg ba ngoon cib dëj te nit dee bañoon dëj da koy gën waaye dama ciy jubloo wax ne aada dafa dominer réew mi ci diine waaye diine ak aada bokkuñu kon non non waaleykum salaam dañoo may gan te jëmm ji ràññeeku ci li nuy def yëpp jublu ci berndeel ñëpp waaye mu jiitu ci ndax dañ ne borom xam-xam yi ñoo wuutu yonent yi waaye borom yan xam-xam xam-xam yi diine lislaam ndax kii defar aspirine am na xam-xam aviateur bi borom xam-xam la waaye wuutuwul yonent yi borom xam-xamu diine yi ci la bokk kon ci gàttal rek. Ada bu rafetee day and ak diine aada joju nak man nañu may gannaaw nuyo bobu ñu ñaanal Serigne mohamoudou muntaha mom Serigne mohamoudou basir ak fi di taxawal taxawayu jamu dugal bop turux yeb ci biir ndax bo limé do matal ta ko tuddul am ku fiti mom japp ni ki nga tudd la gënal fekk yalla sédé te lim matal amul lim ba matal amul hmm? da ci dess ñu motlé ko yéné liñ ci sof rek lu gatt lay doon ndax wax na sëriñ bi sori wul ta daron ma ndigal li moy demal biral ma tur wi su yexé ñu jébbal ko kaddu gi ndax gannaaw bukki mbaar moo toog toogaayu Cheikh bejo ta bu jotaay bi amé Cheikh bejo yow ñuma déggul nak da nga naan waaw ko kon yalla hmm yalla mom toggul añ du mooy tardeer xottilul kenn it nga ñawlu joxewul dépense waaye saayir laay wax lépp mooma hmm? ndaw si yàq nga ne ko neex na bari na yàlla bég na ca kaw gërëm na la waaye lekk ba regg jéggi ndaw si taal cóolo li lakk nga ne yàlla jërëjëf bu la jàppewul ab dofit def na dem na ci xel yi hmm? kon ci gàttal rek ndax xam naa lu fi xaj li nu yéenewul waaye rek saa su ne may fàttali lu ñëpp bokk da ngay jël la ña ëpp ci mbooloo ma xam mooy tudd mu naaj sëriñ Saar nee na moo gën ci gan sëy bu guddee waxtu wa gën a sedd moo gën ci gane bu nu ñëwul woon ma wéyale waaye nag comme moom moom moom daf maa yónni su yegsee damay daaneel kon loolu rek laa bëggoon a gaawtoo ci biir loolu cant gi Ahmed Ka woote du ma faral di tudd Ahmed Ka ndax xawma ko loolu laa ko wax léegi man Basirou Ka laa xam Thiam wax nga dëgg soo soo fekkee añ bu ñuy yàq di ko añee nga fekk ndaw si yàq ci biir waañ wi rek te fekkee woo ka taal buñ la nee ku togg añ bi ki yàq ngay wax fekk dañ ko yàqloo taalul waxi nag sëpp lay doon loxo bën day doon ci biir ndaw si taal sangu dem Dakar ne jànq bi yàqal ma Demba Ndiaye ñëw ci kër gi jànq bi yàq teg indi raxasoog naan ak yëpp teg ak émoussoir suñ ko nee ku togg añ bi jànq bi lay wax taalul. waaye ñu ngi sàkku ñu nekk ci biir kër yi ne nu génn Serigne Saliou ndigal piir ñëw na xalifa Cheikh Béthio ñu ngi sàkku yéen ñëpp ngeen génn ci biti. jërëjëfati universel universel maa ngi jégalu ne ba tey bëggoon naa bëggoon naa gën a teel a ñëw universel mo jom malaaka ne gan bi tuddee nañ ko soxna Jaareetullaahi Maam Bousso mais ki yor gàtt bi na ko defar tuddee nañ ko Maam Jaaratu Bousso mais sàkku na ci ñu koy woowee Maam Bousso ñu sagal ak ñu dimbali rek ci nga mais mat na ko sëkk jawriñ universel ba jóg malaaka ne teeru sëriñ bi sëriñ Saliou ndigal Cuun xalifa Cheikh Béthio ñu nekk ci biir kër yi nañu génn ñu nekk ci biir kër gi nag teeru teeru kër gi jëlal seen boobu. nanu teeru sëriñ bi. sëriñ Saliou ndigal tur ñëwam diwaan bërëb bu gulee. sang bi yàlla na nga fi yàgg lool te wér. yàlla na nga fi yàgg lool te wér sang bi. cun maam bànn yàlla na nga fi yàgg te wér. bërki dem bu ko fi yónnee na ku rëy. ni maa ko yàlla xam na ko wëlbatiku waat ñëw teral sa njaboot kilifa lii rek lañ koy doyee lii sa way juroo ca la nekkoon waaye yaay jataa ngi lay nuyu mbooloo mi kilifa gi mu doon xaar di Serigne Salim ndigal cuun moom Cheikh Béthio dugg si na ci baas bi na lépp bar ndax sëriñ bi amul jot ci jotaay la jóge ñëw ci jotaay te yeneen jotaay yi koy xaar sa jëmm ji gannaaw yàlla ci ay dogalam bi nga doonee doomi Cheikh Béthio sëñ Béthio dala laa jël jaarale foofii taalibab Serigne Touba war a jaar ànd ak yow ci liggéey Serigne Touba bi dem ba. mu jaral ko moom sëñ Béthio mu yóbbu la ci Serigne Saliou Mbacke daal di ne sëñ Saliou sama doom a ngi joo xam ne li ci sama dënn bii yéene naa ko ko sëriñ Saliou ne ko sallaaxu day na fexe ba am sa ngërëm sëñ Béthio nee na waaye ñuy dem ba ma gërëm ko gërëmati ko ay yoon kooku moo gën a seeti Serigne Saliou ndigal cuun moo ñëw ci Tivaouane

boo demee ca rawdatu ba boo demee ca Kaaba na nga ma ñaanal li ma bëgg mooy liggéeyu Serigne Touba bii ma ñoŋal ko ca kaw. sëriñ bi nee na nan ko wutal fu mu toog nga fi waxul ci subaak léegi. waaye dafa tombeek Serigne Saliou Ndugal Cuun xalifa Cheikh Béthio yàlla na fi yàgg lool te teraanga ji nga yónnee barki démb fii ci tiwaawan Pël def ko ci turu famille bi yépp yàgg say rak ni teraanga ji maa ko jox ci taalibe yi kenn ci taalibe yi nag muy jëwriñ universel Basirou Ka bii nga xamante ni mooy taawu yaay jataa dafa baaxoon nag man ak moom ba ñu àndee démb la du tey fu muy yóbbu teraanga ci àdduna sama loxo la koy teg ni ma yóbbul ma yaayam jii toog di yaay jataa mu ni ma bu sang bi ñëwee na ma seedeel ay kàddu ci moom ne ko jëwriñ universel Basiru Ka juddoowul ci yoonu murit waaye nag yàllaa ko xiirloo mu bëgg Sëriñ Tubaa yàlla xiirloo ko muy dox ba dajeek Cheikh Béthio ca la lii yëpp am daje ba ca la yii yëpp am non naa ko am na nu mu doon demee da nga dégg acam waaye fi mu toll li ngay dégg félicitation ngay dégg mbooleem ku am yitte bu la jaaxal fii nga toog nga xamante ni du c'est la première fois nga toog fi ba yàlla sunu borom ñëwee ci dogal sunu góor gu tedd gii sorti bi nga njëkk a def fii nga ko def ci Tivaouane Peulh yàlla dogal muy wat aw tour ci doomam maam bu sa nga ñëwaat yàlla dogalaat tey doomam di wat aw tour muy mambu sey nga ñewat señ bi yalla na nga yàgg ñëw sëriñ Saliou Ndigal tour ci modeste bi wanewul kenn wanewul bopam Cheikh Béthio señ Touba rek la woné mom la ko ñëpp topp mboolem nak ku joge ci diwri universel basiruka boko boo sang bi rek dalay dal di rek tax ak sa ñi sama njaboot la jóge ñuy nuyu nag di sant ak gërëm Serigne Seydina sarat bopp ji nga xamante ni kenn du ci universel mu jàppale ko lool mu jébbul ci nga yow tamit ko li nga am alal du maye personnalité maye koy maye ñu te li nga am kenn amuko ci commune bi tey vérifier amul ñaar ñii nga dajale leen fii amul ay milliards du ko maye. sa taalibe lool moo la ko may lépp loo def ci kër sëriñ Touba ku la raw ëpp la fuuf def na ko waaye bis bu nekk nag am dafa am ci ku ñuy wax waaye diwlin universel ma jóg malaaka mii mi ngi def li mu war a def foo waroon a teew wala Seydina waroon faa teew ma nga fay teew di matal lépp te duggeel yëpp ci dox lu rafet ci wax lu rafet ci it ànd ak ñoom te rek tax kon fa tabaarakallaahu fi may gàttale fi may tëje nag mooy lu ñu bëgg rek di nuyu bu baax suñu soppe bi yàgg fay ànd ak Basiiru Kan yi lu yàgg Ahmed mii nag fa tabaarakallaahu di rak ci jëwriñ universel Basiiru Kan bi Basiiru Kan yàlla bi dañoo boole su ma déggee embouteillage bi moo ma jënd oto jox ma jox ma kër may tax waaye rakkam yi ñu bokkal ndey baay su leen neexoon ñu xatal ma waaye tabaski bu jotee xarum 500000 damay yónnee te du ma ko jëli sama kër lañ koy yónnee bu tànqalit jotee lu fa war a jënd sama kër lañ koy yónnee lu may def ci kër gi ñemewu koo yëkkate newu leen woo leen ma sayar càmm yaayam ji nag ñu ngi koy sant bu baax heure bii daaw la ko bëggoon a yóbbu màkk wàññi juróomi million teg ci loxoom ñu ne at yi état bi li ñu def mu ne ko joxe naa ko ba pare téyel ren jii ñu toog ba 2 heures du matin mu woo ma ma ko universel mu ne ma ah ba de laa bëgg yeggale ma jóg toog nga ne ko ma ne ko nga ne nag mu ne loolu laa bëgg yeggale mu ne ma xaalis baa ngi nii sama yaay daa dem lomp ma ñëw mu yëkkati xaalis bi ne ma mi ngi nii nan ko garde ba mu ñëw ñu laaj ko affaire bi ñu gar ñu garde xaalis ba mu ñëw ñu laaj ko ni ko yaay booy loo bëgg mu ne man sama xol bi yonent bi rek ci nekk su ma ko mënee tiim mu joxewaat ko ñu boole ko mu ngi koy boole ñu wisit yaram ñu xool ko ñu ni mën naa def kon sëriñ bi nga ñaanal ko yàlla na dem ak jàmm ñëw ak jàmm ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam waaye Cheikh Béthio jàmbaar ji kenn du moom lii yëpp moo ko wax universel Basirou Ka ñi lay fëgg ci ay soxla nga di ko faj problème bu am ci dëkk bi lu am ci réew mi ñu ne Basirou Ka li nga sauvé ci ay nit kenn mënu koo wax am na lu mu doon demee nag dinañ dégg àccam waaye fu mu toll nii fi ngay dégg rek te neex di gën a neex fa tabaarakallahu jërëjëf. su fekkoon bi ñëwee dix heures et demi jël kàddu parce que discours bu rëy laa pare pare pare pare kii ndax kii ak man ak ñeneen waaye al ishaaratu teg fi kii daf maa waxal lu bari mooy Serigne Modou Diop ñi ku rafet xam-xam te dama mës a am lu ma xalaat wax ceeg ñaar ñoo xam ne surtout Cheikh Al Khadim lañ samay wóllare ma am lu ma xalaat fanaan koo xalaat ay fan ci kii wax kook ñoom man dama bëggoon mu recevoir ma ma am lu ma ko wax ma xalaat ko ñaar ñoo ñi ma ci waxal ne ma ah nga dëgg de kon kon da ngay seet foo koy jaar ba xam pour mu recevoir ñu mu ne xaw yàgg la taxoon ma doon ko xalaat ba wax ko ci xadara cheikh cheikh Béthio bu cheikh Saliou xoolal gis nga ba ma xalaatee loolu bayil Bachir borom kàpp bi siggil ah moom it ah d' accord ah d' accord d' accord monsieur garde corps d' accord ma xalaat loolu xoolal semaine semaine lañ ca teg wala wala semaine ak dara loolu fa mu def ko te bu mu wéeteeg moom danañ ci wax dama ko xalaat wax ci wax ceeg ñaari sëti seexal xat yi ñu ne ma wax nga dëgg wax ceeg moom ma ne damay wut rendez waxtaan naa ak Baye Mor mënum wax nga dëgg léegi wut ci rendez may seet kan laa war a jege wax ceeg moom ba am rendez-vous ak Cheikh Saliou xoolal Bachir semaine lañ ca teg mu tul ñaari semaine mu def ko moo tax mag ñi amuñ morom

ñu dem sin Sidi Mokhtar boobu moo fi nekkal Cheikh Al Khadim mun a jaar leen Touba ngeen añ dañoo fekk ma kër ngal na ban ñëwee maa jël parole ban ñëwee bañ waxtaanee ma ne ko sëriñ bi Masaalikul Jinaan dañ ci war def ay séminaire mu ne ma maa ngi ciy xalaat moom sëñ Sidi Mokhtar waxtaan ba yaatu ci gàttal la ma ci jukki foofu mooy xaqiqatu shukri لدى من علم جهودنا من في الجلال النعم تانت بير كيكوي ديف موي كي خام لي كو كي نك كو خام لي كو ديفال وايي ا اه، نيب وار نان كو دلو نيوكل موم خالي بي موم خالي بي بشير لون لا گرمي نان ويت نيانال لاكو مو گن گرم نك باخنا نخ abdi lam yashkur ni kii wax na isa lam yashkur man ajraytu ni'mata alayati borom bi nee na buñ la terale nga bay nga nga nga ne ñokket sant si ma dama dax déet demal teraange bi jaar jaar fa door ak si ci man dafa am benn kilifa su ma ko tuddoon ngeen xam ko dafa am ku ñëw mu yëkkati bee Makka jox ko na ko nag bu ko kenn yëg demal nga aji tu bu ko ya, wajib yek waji ji ko derlo ko fa ko kon téye ko téye ko ndax jamono yi ma tollu ni suma wër di taggo mak ah dana am ñeneen luñ xalaat man dépense suba lay xalaat xey di taggo mak kon téye ko su fekke ken du ko yek ya, munuma ko ko mu puusaat ko derlo ko ko na tax may def mu ne ya kon bako borom bi tax nga def ko te man nga ba ma mo wax loolu moo am solo kii lu ne la def te lu mu def Cheikh Béthio la koy tudde moo tax bëri na ñu xam Cheikh Béthio am ci Cheikh Béthio cofeel te mi ngi jaare ci xale bi loolu nag njabooti Cheikh Béthio yi wax dëgg yàlla munuñ ko ko fay te soo ko waxee moom it mu ne njabooti Cheikh Béthio munuma leen fay kii nag sama jarbaat muy Malick Diabou Seck. Serigne Béthio Serigne Béthio yërmandeem yàlla na gën a saawaan ci ñun. Serigne Béthio yërmandeem na mel na ni kàddu sax awma ko war ndax ñi fi toog moom bu ñu toogee aw ma sax lu may wax xanaa santaat sëñ Béthio may sama sang bii nga xam ne budul woon moom la mbaay ñaaw. barki Serigne Touba Serigne Béthio bu dul woon moom lépp day ñaaw barki Serigne Touba moom a dimbali waaye di siyaare suñu sang bi Serigne Saliou ndigal ci woon xalifam Serigne Béthio nga xam ne bi Serigne Béthio demee moom daa uuf ñëpp daa uuf njaboot ji njaboot Serigne yi uuf leen waaye uufaali taalibe yi surga yi ceewoon tool yi sax di leen uufaali kenn jooyu lu sëñ Saal digal nga xam ne foo ko wax rek kooku mu ne man dem ko bokk te loolu dogal yàlla moo ko def ci moom man nag mu fonk ma yaakaar bu mu nekkee xalifa sëñ Béthio bokk naa ñi ko njëkk tantal baas mu ñëw fii Tiwaan kon te boobu génn ay fasak moo dox ba tey daf ñu bëgg fonk ñu nekk nit ku baax xam ne lii yëpp su ko neexoon bu ñëw mën na bañ a ñëw ndax am nañu ko ko doxal ndax sama sëriñ sama bunt ci moom mooy sëriñ Saliou Seydina mu ngi nii toog bu ko woowoon mu nekk loolu yëpp parcee naa la lépp mat na euh, kii mooy sama sëriñ sëriñ Saliou Seydina ci moom laa yeesal jébbalu ci moom muy sama bunt ci sëriñ Saliou digal waaye ñun ñëpp la boole wuuf ñu daa am bés sëñ Saal naa wooñu ci kër ga ñuy waxtaan kaddu yi di tegloo saa bu ñu waxee commencé wax rek sëñ Saal digal woo ko mu wax ak moom mu coupé ñu demaat tuuti encore mu woowaat ko encore mu coupé waat sëñ Saal Seydina sëñ Saal naa mu ne moom de nii sëñ Béthio doon ak man moom sëñ Saal noonu lay doxee ak man ndax du mën a toog ay minutes rek te gisuma moo tax daf may woo rek. te loolu ma seede ko te mu jotaay bi ngeen gis yaakaar sumo jumul bay juumul bàyyi góor fekke na wala amna ñeneen bokku talib yu ko fekke bu ma Serigne Saliou digal ci woowoon mu ne tasal jotaay ma tas ko yeen ñep ngeen ñi mako ko fekkee te yaakaar naa su ma mujj di mam bésu biñ koy tudd fi kaddu ngeen dégg li wax ci mom ba so xolé Serigne Seydina bu dañ yaangi tour xewal fa mu ko waxee ak ni mu ko waxee moo sori ci xol sama rakk bopp bii nga xam ne biir bi mu ànd ak sëriñ bi moom rek moo nekkoon ak moom wax kàddu yu kawe kon ñun moom ay taaliba rek lañu ñun duñ ci leen te ñun sëñ Béthio rek lañ bëgg sëñ Béthio rek lañ bëgg kon sang bi ciun maa ngi lay sant bu baax sant sama mbokk yi fi teew yëpp su ma limee damay ñëw juum sant sama waajur bu jigéen ndax moo waral lépp cuun bu dul woon moom lii yëpp du xew ndax moom ma wattu ci xal wattuma ba oto féeru lab duuma wattuma ba ma nekk nit ku baax koo xam ne ma seexloo def lu bëree bëri bëri bëri si àdduna bi te sëriñ bi sama wàll jigéen bi ngay gis situation bu difficile la traversé ba ak sa génn bu metti bu metti laa la wax bu dul woon ab gor bu ñu defal way bu rafet waaye gore moo tax loolee man ndax daa mu ñul sama waajur dafa ci situation bu bu difficile la génnee àdduna pour génnal ko garab sax dafa jafe mais sama waajur bi jigéen uuf loolu téye ñu téye sama waajur boobu ba dogal ñu ñëw moom it mu téye ñu bay ñun ñàkkuñu dara ñun suñu baaxul dañu bal dafa war a tàkk suñu kaw ñu dee barki Serigne Touba waaye sëñ béytu ànd bi ma ànd ak moom su ma dajee woon ak moom ëllëg mu ne li nga ànd ak man nag li nga masa a def ak mbaay la dama naan ndokk nangu na man sëñ Béthio ko àjjana man bokkuma ak taalib yi toppee sëriñ àjjana man sama àjjana fii la commencé fii ci kaw suuf sama àjjana fii la commencé war ci sëriñ Touba ndax sëriñ Béthio bu la dimbalee yar la def la ci ay ay teggin nga liggéey am tuuti sa waajur ñam ci say doom ñam ci say mbokk ñam ci nga dimbali ci ay nit lu mu tuuti tuuti boo feebaree di dem hôpital suñu lay perfuser nekkul sa jëmm ji ñi la yaakaar te seen te motala guñu moo tax waaye bu doon yow mot na sëkk ndax am na ko judd si matan di kenn dem dawut moo faat kooku jëriñul kenn barki Serigne Touba te loolee nag daa doy sëkk ci li ñu xam ñun jànguñu alcorane jànguñu français ñu xam seen béy joo ñu xam kon ma ngi lay sante bu baax di sante bu baax Serigne Saliou Seydina momit ñu téye japp ñun mom wacce na ay lalam ay yoon ay kërëm kërëm jox ñu ciabi ma bañ mu ne ma nek fay fanan këram kërëm bi ci Tanzil bokk na ci ñi jëk fanan ci biir kër gis ko lalam Madinatu salam la même chose kon mu ngi lay sant bu baax ci ñaan yal na yàlla def jàmm di sant bu baax nag jëwriñ universel moo job malaat ndax lépp moom sama taalibe moo ko defar moom la sëñ Béthio ñëw jël sama loxo teg ci loxom ci jaxaay mu ngi nii si ginnaaw mu yar ma nag njaboote ñu suñu kër gi lu fi xew moo ko moo moom mooy li jël ci ko mooy taxaw mooy suñu papa mooy suñu nijaay mooy suñu jëwriñ mooy suñu lépp moo jàngal ak talib xam nga ñun xam nga nit mën na nek murit wala nga nek ak cantaak ko ngay do am xam-xam bo amul xam-xam nak boy dem fenn su valeur day wacc valeur nak bu wacce ci nit amato valeur mom yow nit moom do tekki dara waye mom def ñu njëkk jangal ni ngay siaré sëri ni ngay waxee ak mom ni ngay comporté woo ak mom kat du bari motax ma nek bu mbolo yépp yëpp tasoon suñuy tànnaat yow ndax ci jikko tay na sa xam-xam day nañ moo ñu yar moo ñu defal lépp si kër gi lu nekk la fi defal waaw université moo jot malaaka bi barki sëñ Touba moom day day day te daa mën a engagé na waaw moom nag ku ko ku ko bañ wala nga xeeb ko rek ci dëgg nga ko bañee ak xam-xam bu wér loolu point boobu kese la di sant bu baax ñu fi ñëw yëpp sama papa Malick Diaby Seck sama sama xarit ak sama papa Oustaz ñoom ñëpp su ma limee damay jub ñi fi nekk yëpp sant naa leen waa Tiwaawan kon bàyyiwuma kenn sant sama waajur yi sama waajur bu góor Papa Jibi ñu nuyu ko sant ko bu baax a baax baax sant ñëpp ñoom président Mamadou ñoom Amina Dramé ñoom ñëpp ñun fii ak président Mamadou ñoom ñëpp daal su ma santee sama goro yi ñoom ñëpp ñun fii su ma santee rek day am ku may fàtte te bokkuma fàtte kenn bés bi ab cant kese la si ñun sama rakk ji tamit ma sant ko bu baax kër gi maax moom rek ñoo fi ay cantaakoon sama yaay ñeenti doom yu góor la am ñii féete ci waaw ñii féete ci yoonu Serigne Touba moom nii ma yar ko bi sama waajur bu góor ba muy ba muy wàcc liggéey boobu tout tànk ba ndaw la maa ko dugal garage jàngal ko mécanicien ànd ak moom ba tey suñ ma gisee ak moom ñuy jaawale mu nekk ku ma dëggal nag te nangul ma nit nag moo ngeen bokk ndey ak bàyyi bokk deret waaye bokkoo leen gis-gis bokkoo leen pas-pas wala yàlla dogal tamit neexoo woo leen waaye man sama rax yëpp neex laa neexoo ndax man bu ma la neexul sax yow dag may neex man noonu laa doon noonu laay doxee man man nit ma neexul sax def man man man dag may neex rawatina nag sama njaboot yi maa ngi ñaan yàlla ak Serigne Béthio mi nga xam ne lu ma mos a am Serigne Béthio laa ko ñaan te defal na ma bu dimbali ma rek ba bu ma juum wala bu ma am xol buy buy soxor wala am luy soppeeku ci sama jëmm ji ba ma jëmale ko sama njaboot ak sama rak nang ngi koy dagaan sëriñ tay ñaan tamit gën ñaanalal ma sama waajur bu jigen day dem Makka tay ren penku gën ñaanalal na ko mu dem si jamm ñibi si ci jamm sëriñ bi ma sama mission yëpp mat la ma doon wax bu doon lamay may man na wax tenk na ko sama waajur bi demee Makka bu ñibi sé yalla suma rayon sax mat na sék barki sëriñ Tuubaa lolu kessé mom moma ma te su ma amé lolu tay na ma man bay jé defal na ma lu né du alal bu ma yor yenn saa yi du ma yor essence bu ma sol waaye fu ma génn nit yi ay mag yu am pijaar wàcc seen seen chaise yi ñu toog di ma jox te xale bu ndaw laa du ma ci dara loolu kii kese la si mbéy barki Sëriñ Tuubaa maa ngi tuub ci kàddu yi bëggoon naa wax lu ëpp loolu waaye mënu maa wax li ci sama xol waaw man njaboot sëñ Béthio man dama leen ameel njukkal sëñ Béthio fu ma mas a jaar su ma ko xamee sax naa ko miiri ngir teral ko ndax li ma def jërëjëf Diop jërëjëf. day jotaayu cat. léegi rek ci bi may ñëw ci oto bi maa ngi déglu vidéo sëñ Béthio boobu ñuy partagé bi muy wax ab cantaako nee na moom ab cantaako kuy sant yàlla nee na waroo mer nee na war di bëgg waaw nga xam ne ak cant day loo xam ni li ci yàlla wax ne ku sant mu dolli la la in shakartum la zidannakum lam ca teg nag moo gën a doy waar wala in kafartum mooy ne azabi sa biir ak cant sëñ Bello bi ma dégloo vidéo bi sànq dama cee jàngataate ni cant du lu yomb waaw ndax nee booy sant danga ngaa war di bëgg tey bëgg le moo tax tey bi ñu ñëwee fii jotaay bi fekk la fi muy jotaay boo xam ne duma ni tey la doo a am universel wax na ko léegi euh, saa su ne saa yu ñu fi ñëwee ànd ko ak yow wax dëgg yàlla te bu nu ñëwee lu rafet rek moo fi am lu baax rek a fi am ñoom nag mënta ñàkk ma yëkkati ay kàddu jëme ci ñoom ndax xam nga ñoom dañoo bokk ci xeet wu nga xam ni yàlla nga leen di ci wàllu xam-xam jafe na sax nga gis ci ku bokk ci seen xeet nekk am murit te dëggal ko ndax yàlla dimbali gum leen dimbali am yum leen defal te may leen ko te yàllaa jóge fu ne nag fu ne rek da koy nangul lam fa def ñoom yàlla seen askan yàlla dafa dogal loolu ci ñoom bi loolu amee moom mu engage ñëw ci sëriñ bi te nga xam ni kii da koo dëggal muy koo xam ni wax dëgg yàlla moo tax man ma xam amet ndax Ameth ànd gu mu ànd ak moom ñuy dox ci sëriñ bi di ñëw ci man ci laa dem ba jaxasoog ñoom nii ma jaxasoog ñoom dem naa ba nga xam ni sax fii may waxee yow garde du corps am yeeg ñëpp laa xam ngir jaxasoo gu ma jaxasoo ak moom ma di leen bi sëriñ bi kii ku bëgg sëriñ bi la yaa ngi ma koy wax léegi ma kii askor la kii ku bëgg sëriñ loolu maa ngi la koy séeréelaat fii di la wax ni ku bëgg sëñ Béthio te ñun danoo amul lu dul lu waay jàppe sëñ Béthio rek noonu lañ lay jàppe loo ko gën jàpp rek ñu la jàpp dañoo gis nag sóobu gu am la dernière fois damaa dem bureau bureau bi daa mel ni ak musée ndax ay photo sëriñ bi foo dugg fekk mu daaj fa photo sëriñ bi loolu nak li wone rek moy cofeel gumu am ci mom kon ñom ñi ngi leen di ñaanal rek ñuy nekk ci jamm ndax leneen lu nu nekk lu dul loolu yi dinañ leen ànd ak kon nañu nekk ci jamm mom dama bëgg sëriñ bi nga ñaanal ko mu mucc mu bari ay xéewal ndax mom bu bari xéewal nit bari la ko nit la ko xamni lu mu yor da koy partager lu ay li mu wax legi lu mën nela tok te du yor dara te bu ñëwé bu ko yoré bokko laaje mu jox la ko waaw dangay toog di ko dégg nit ñi di ko wax te nit ñi boo leen di boo leen ko defalee dañ koy wax fu mu dem rek foo toog ñu laa universel Bassirou Kane ñu ngi koy sant ngir moom day teraanga yi mu séq ak ñun nangam kon sëriñ bi kooku dafa jaadoo ñaanal dafa jaadoo jàppale ba tax ne universel maa ngi bëgg di sant rakkam ji amet ndax day nit ku baax xam nga àdduna man sëñ Sall damaa bëgg lu baax bi ma seetloo amet ma gis ne nit ku bëgg lu baax la loolu daf daa tax ma gën koo jàpp jàppoon naa ko waaye damaa gis ni kii bëgg lu rafet la ku bëgg lu baax la moo tax ma ne ko yow nii nga ànd ak sa mag ji dafa jaadu loo nekk rek ñu ànd ca yow wax dëgg yàlla sant nan bu baax sant waajuram yi ak mbokki taalibe yi mu ko àndal wax dëgg yàlla boo ñëwee toog dangay ngay jotaay da ngay koloor jotaay bi boo toogee kàddu gi sax mënoon naa ñàkk waaye dafa mënta ñàkk rek ma seereel la ko ci sa kanam donte sax xam nga ko waaye ma leeralal la ko ba nga xamee ko te lay ñaanal loolu tamit jannatu ñu ànd ceeg yow tàmbali bi ba jeextal gi dan naan ma sax bu ñuy réunion faadal fan nga jëm parce que maa ngi dañ koy couvrir ban jotaay moo lay neex may leen fu mu mën a yóbbu te yóbbu leen ma jannatu bëgguma defal ma juróom benn fan ba nga dàq ne gi ñu ànd ak yow ba nga dugg ci penc bi ba gàmm gi jeex ba gàmmaaka gi jeex ñu yeewi baas yi ñu door a yeewu moom jabaat bi te leen liggéey loolu noppi na ma ban ca jógee daaw leen tàmbali waaye bay indi ay kàddu seede ci jëmm ji nga xam ni ku ñu xam ne nag xam na ci Dakar bu social mooy ñu tawal taamu ñu doon fajoo ñu leen di dimbali moom mi kenn mënu ko ci muy nit ku social nit kuy partagé nit koo xam ne dañuy ñaan yàlla guddal faram te may ko ay xéewal li mu wax ci waajuram nag cuun kenn du nàmp meew gala jur jiir ku sa waajur baax nga baax fi waajuram jaaram ak papaam ba jur ko amul droit def erreur waaye loo ko ñaanal ci ay xéewal doyul ndax bu amee ñëpp seet lii dong laa doon jotal xam na ci man damaa war a dem tournage waaye dama ne lu ma am danaa dikk ba jotal kàddu yi kii ku ma télé war a mën a fay ba jërëjëf tur yàlla nga gudd fan. jërëjëf tur ba seexal ko yéen i pëndub Serigne Saliou yéen i pëndub Cheikh Béthio pënd i pëndub Cheikh Cheikh Béthio kon cuun yaag sa rakk lu ngeen jéem da koy man lu ngeen jéem da koy man te nag cuun bàyyiwoo kenn barki ndëm boo nga ànd ak sa rakk yu baax yi dëj nijaay fa mu fekk cuun nga bëgg sa rakk yi ba ba gëmee woo koo ci gis sax yaa koy jëkkëree kon cuun yal na yàlla bàyyi say rek jëm jii nag yow alalu Serigne nga ndax kii fii ku fi dugg di nga foot gis foto Serigne Babacar gis foto ab Alaaji Malick waaye Serigne Touba fu dugg alalam da def ci boppam moo war a bi kon dara jombul kon kay yàlla yàlla bu sa fan léegi nag taalibe gu wér bu rafet goo xam ni képp ku njabootu Seex Béthio dim am taalibe war ngaa roy ci Basiru Ka mii toog ci doxinam de ak rafetalam ci mën a maslaa ci ab yar ay teggin lépp lu ñuy xemmam ci doxalin taalibe gis nañ ko ci Basiru Kam yi moom nag sëriñ bi nee na nee na weesu moom wax dëgg yàlla fu muy waxee lu neex nit ndax teg nañ ko ci loo xam ni nee na sëriñ Tuubaa daa faj aajoom ma noppi ah, sëriñ bi nee na duut fi toog nee amatul temps bu muy perte di waxal nit loo xam ne gëmu ko moom. amul jot boobu Serigne Saliou ndigal Thioune nee na jëmm ji toog di Basirou Ka ah nee na rafetlu na aw doxalinam de nee na ànd bi nga ànd ak si neex na nu de te sagu nañ ci de Serigne bi nee na képp kuy njaboot ci Serigne bi. sagu na ci ànd bi sëriñ bi nee na sëriñ day sagal ab taalubeem waaye taalube nag day sagal sëriñam te nee nag si wax dëgg yàlla sagal nga sëriñ ma nee na yaa ngi dundal kër gi nee na dundalin wu rafet ànd koog sëriñ bii Seydina muy sunu 17 avril bii passé nga xam ne événement bu monde bi xam nee na ak gileem la jël app nag ma ko jox ko addiye kon sëriñ bi nee na kooku ah mi ngi ci li ko war de kooku xam na ni yëf yi jëfam la nee na toogaay bii nu toog nag mbir day loo xam ni daa te ñàkk ku jiitu rek waaye mbir mi sunu mbirum bopp la de sunu yëf la de sëriñ sëriñ nee na yëfi Basiru Kala nee na Seydina Sëriñ Saaliwu yëfi Seydina Sëriñ kenn ku ci nekk nag war ngaa xar sa tànku tubay fu sunu sang ba bàyyi woon ñu wéyale ko jëme ko kanam te te seet ko rek moom sëriñ bi nee na ci def nee du am solo sëriñ bi nee ci loolu nee na laay sante lool ci njaboot muy sëriñ Xaadim mi ci mag ba ci moom mii toog day mel ni. ah ak cant rek ma war foofu ndax kat ànd bi dëggal nañ ko te sellal nañ ko nee na moo tax mu am sañ-sañu Basiru ko am di tudd ñëw ci man wax ma ko ma doxe ci ni ma ci doxe su ma xamoon ni su ma ko defee du ko neex du ma ko def bu lay coono dëgg la waaye xam ni def li ma koy def moom laa koy defal te lu rafet rek laa jublu moo tax ma def ko ba pare sol sama daal ñëw toog bu lay coono yaa baax yàlla nañ fi yàlla. gars yi nee leen amin waay kon nee ngi ci doxin mi nga nekk yaa ngi ci yoon de ànd bi nga ànd ak moom na yal na ko Serigne Touba barkeel loolu yéene ci jëf yax yow jëf bi ngay jëf ci sëriñ bi rek nga ci sëriñ bi rek nga ko teg nee na looloo ku ci gën a neex nag mbooloo bi nee na lu nekk day nekk ci biir mbooloo waaye moom nattukaayam sëriñ bi nee na ci taalibe yi mooy sëriñ ku la ci gën a bëgg sëriñ bi. mu gën laa fonk nee na nattukaay baa googu rek du ci am-am du ci ay yëfi man ku xam ni sëriñ benn yëkkati ci moom nga tàmbale yem ci moom mu yitte woo la awo cub nee na xamoon ni nag da kooj seg bi nee du fi ñëw maa nga war a jëm sama sang ba daaray bustaan te bu ma ko dëngalee nee na lu am jot du ci gis dara nee na Sëriñ Tuubaa dimbali na ko mu am ci moom cofeel fii muy waxe cofeel gu rëy goo xam ne bu ma ci def melu ma ci woon noonu nag day mel ni sax miinu ma ko woon waaye ci lii mu nekk nag di ci dox Sëriñ Tuubaa nga xam ne dara teewu ko

waaw boobu feneen foo ko lijjantee fu dul foofu tardeel nga sa bopp walaay ci dëgg ndax doo ko faam nee na loolu dama bëgg taal bi yeewu ci ngir rek dëggal cofeel ko di Serigne Béthio amoon ci Serigne Saliou waaw bu suppee jotaay dem ci Serigne Saliou nga bëgg koo foo koy wëree furut kër Serigne kër moo tax nag ma xar sama tànk tubay Serigne bi nee na ne fa fas yéene faa ne ci nekkin woo xam ni. danañ jariñ ñun ñëpp mooy liggéey si Tuubaa loolu nag day mel ni yéen xam ngeen ko sama rakk yi xam nañ ko ñu ngi sama wet di ma jàppale maa ngi leen di seereel li du ma leen war mukk war leen mooy ma nekkoon ci leneen lu dul lan suñu waajuroo tegal du ma leen wutaleeg sama bopp. du ma leen wutaleeg sama bopp mukk. sa góor toll na ni cun. te def naa leen ngeen di samay sang. te def naa leen ngeen di samay sang. di samay sëriñ. lu ci waay bëgg. boo ma ko waxee. su ma ko xamee. dinaa ko def. nu raw. nu ñu raw sa njort. lu raw ni nga ko njorte. moom mii nag. sëñ Tuubaa dafa bëgg dafa def. man ci moom cofeem. wax na dëgg de. du toog ñaari minutes yu ma ko wowul téléphone waaye temps na xam naa ni xéwal yi daa bëri xam naa fu ma jàttee xéwal yi Basiru xéwal yi dama bëgg nga xaw koo téye tuuti aslum ndax dama koy gëj gis bu ko woowee ah damay fekk muy mel ne xam ne daal te loolu gënalu ko pour wax la ni rek sunu nekkin. sëriñ bi nee moom day ak bëgg lu baax su sunu sang ba lu baax rek la bëgg lu baax la daan jëflanteeg ki bokkam moom la daan jëflanteeg ak i taalubeem moom la daan jëflanteeg ñun ñii nga xam ne ñu tudd lu baax rekk la doon digle te man day lu baax rek laa bëgg moo sañoon moom ndey lu baax rek la bëgg ba tax na univers maa ngi lay ndokkeel ci clairvoyance ci sa sel yooyu nga xam ne ñooy nekk ci kaaba gi nee na ñoom la fay ñu teg ko ci benn genre di ko mbax mag la te bëggul mu sonn mooy ponkali naari xaatuur yi rek nee na kooku mooy maam Mbam kooku mooy soxna su tedd sax tudde naa ko ñaari doom ndax man moo ma yar ewe sama kër ñaari maam Bambey nga fa maam benn so maam Bambi soxna soxna Momar soxna Momar Ndiaye ak maam Bambi mu gën a tuuti sama doon li may nett bi léegi Serigne Cheikh alxames damay dem maam ñoom noo ànd Serigne Cheikh xel na gafe ba des tuuti mu ko maam Bambi am barkeelu muy bëgg bañ ma ne ko eh! kii café di nga naan bu ko naanul naan ko de bii café da koy naan naanal mu naan gàj naan naan ma ko naanal rek xol ko rek nga nga nga xol ko rek mu naan ko ba café nga jeex kon nag loolu daal laa ni woon dinaa ko wax ci kàddu bëgg leen bëgg imam imam maa ngi lay nuyu dégg naa sa kàddu dugg na ma maa ngi sàkku de universel nga dox diggante bi nañu fexe lu gisante nu mu gën a gaawee ndax yéene la am kii ku sell la xol bu sell la boo déggee li mu wax ak ni mu ko waxee da xam ni ku am yéene la nit ku baax la te mbaax suñu borom ma koy def du ko mu neex nga baax déedéet jikko ju baax jikko ju rafet ju baax suñu borom ma koy def ci doomu aadama dee gis kuy baax baaxul sax waaye baax moom ba ñëpp di ko suñu borom ma koy def ci doomu aadama loolu nag ay dogal suñu borom la kon sëriñ bi nee nee na maa ngi fasanteeg kóllëre imam di la ziar bu baax te di rafetlu sa teewaay di sant mujj malaaka mi mi taxaw ci liggéey bi ku ci am taxawaay ku am fula la ku am xam-xam la ku di tërbiye la ndax moom lim ci bi mu ci tollee sunu wayjur sunu sang ba da koo jël. yóbbu daara mu di fay jàmbaar tooli xel koom la tax ñu naan ko mu jóg malaaka ak njàmbaar teem ci biir tool moo tax ñu tudd ko mu jóg malaaka ndax daawul lekk malaaka bu lekk nee na di jëmm ju baax nee maa ngi lay wax sama cofeel di wax sama mbég ci yow ci sa taxawaay biig maa ngi yow noo fanaan cant samedi cant gëm nu bàyyi dina rawale foofu mu ko déel di Tuubaa njurul rikk waay gaay bu samedi jotatee nañ jël ci sunu jot ñaari waxtu ñetti waxtu dañuy toog di sant Serigne Saliou ndax loolu rek la ñu jàngal waa Tivaouane Peulh cantaakun yi fu samedi jotee tee nañ bàyyi yitte yi te dem sant Serigne leneen lu ñu def nee duñ ci jëlee dara te loolu rek mooy sunu njariñ. adduna nag Serigne Saliou waxoon na ko ma ngay daw dëdduna te dax ko mun nu koo def suñu borom nag loolu ko gën a jigee mu jegele lu góob tey moo bëri yërmande loo ko jege mu daw jegele lu góob te fa ngay jëlee njëriñ nag jamono ji xat na metti na. nee na ku ku ku sorelul sa rek doo am jot dootoo mën a tàbb ci sëriñ bi maari day taali te bu boobaa nag sëriñ bi nee na yaay perte nee na toirkar kon nag yëf yaa ngoog li ma bëgg a wax bari na wax dëgg yàlla bari na te bu bëggee noppi leneen ñëw tey tàng na te jamono ji moo tax maa ngi len di sat serigne bi neena ngi len sat bu baax di yeesal lepp rek neena dom doom yàlla dund te barke ci barke serigne saliw jaa ngeen jëf bismillah taal leen loxo yi bi ñaan barkeb sëriñ Saliou jërëjëf Thioum

léegi lay wax ne sax dama yóbbu dama wax nee nañ ñoom suñu terrain mooy bu seetlu na mais parce que fii da nga ci ñëw da nga ma fàtte wax ne loolu nag sëñ bi loolu moom yow laa ko bàyyi kii toog toog ko. ko buñ ko daggee man tabax tabaxaale Gracias. waa gan teraanga yaa ngi nii xéewal yaa ngi nii. raisin baa ngi yàlla na gën a yaatu. orange baa ngi nii. bu déwénee yàlla na nekk ay ay lii ñu defal Serigne Saliou digal cuun mm. lu ndaw la. ndax lii du dara. da ngay xool li mu li mu li mu daw ay kilomètres ñëw fekk si jëwriñ te li ma ko wax sànq li nga am tey yombul dajale njabootu Cheikh Béthio ñoom ñaar ñëpp ñu ñëw toog sagal la kenn mënoon na ñëw bàyyi kenn waaye nag sa jikko rek hmm. moom lañ la topp ba tax ñu def lu mel nii yàlla na sa jàmm yàgg nga ful leen déedéet beneen bassin beneen bassin bon loolu ah loolu kat yàgg na wax yàgg na wax xëy na dugal dugal na gën a taxaw. lépp lépp waaw lépp. ah. tëjal ma tëjal ma. waaw. jërëjëf jërëjëf ma jóg. waaw jërëjëf waaw si kanam jërëjëf Thioune jërëjëf jërëjëf